fa am loo xam ne dama koy bàyyi xel mooy Cheikh Béthio bi ñuy tudd di ma tudd loolu dafay loo xam ni sas la ci ban te nag nit ñi bëgg Serigne Touba taalibe yi di ay cantaakoon dañoo bëgg Cheikh Béthio sëñ Béthio jaran leen lu ne xëy na cofeel gi ñu gisoon mu am ko ci man tey wax dëgg yàlla mu dimbali ma ndekete dafa ma bëggoon utal lay ba fu mu mës a ne ma ànd ko ak moom lu mu mës a liggéey lu ma ànd ci ak moom xëy na loolu ñu doon gis sama diggante ak moom ak xëy na niroo gi physiquement ndax yàlla dogal na fu ma dugg rek buñ ma xoolee rek bu ma nee cuun rek ñu ne ah yow de ku la xool xam ne leeru sëñ Béthio nga xëy na loolu ñuy gis ci man mu leen koy fàttali jëmmam ja te ñoom bëgguñu ku dul moom xëy na looloo waral cofeel gi am ci man cofeel gi nag du rëy ci man di loo xam ni fas yéenewu ma ko salfaañe fas yéenewu ma ne ñii kat am nañ cofeel ci man kon naa leen indi ci sama bopp naa leen def loolu leneen lu bokkul ak la mu bëggoon li may fexe mooy lépp loo xam ne moom bëggoon na ko te bëggoon ab taalibeem di ci dox boo ma fekk see ma ànd ak yow ci loolu ngir teral na ma lépp lu ma bëgg moom defal na ma ko bu dee ay kër jox na ma ko ba ma doyal bu dee ay oto jox na ma ko ba ma doyal bu dee tukki foo xalaat ci àdduna yóbbu na ma fa na ma fa loo xalaat ci am ci ay poñetti àddina li nga xam nit da ko war a ut defal na ma ko te bu bem bi mu mel ne ni dafa mel lu fi jóge ci la daa mel dama koo xëpp sama diggante ak moom li ci feeñ dafa bari saay su ma xëyee rek di am lu ci bees lu ci yees lu may xam <coughs> yàlla dogal mu amoon ci man cofeel goo xam ni maanaam man sax mujj gi dafa ma teg kersa jàpp naa ni man ak moom du ma ni day amul lu mu wax ak keneen waaye li mu wax ak man bari na lim ma xamal ci boppam bari na te loolu ay dogal la sama diggante ak moom sama takkoo woon ak moom nga xam ni fu mu mësaane ne ñoom maa ngi moomay ànd te loolu nekk sama ndimbal te njariñ li di feeñ ci man jamono yii ba ku ma gis di ma bëgg ngir loolu xëy na looloo taxoon nag bi lii fi amee ñu bari di ma xalaat waaye man it yàlla dogal na préparé na ma ci lu ne préparé na ma ci bi loolu amee ma nangu ay dogal ngir kat nit bu fi nekkee ànd ak yow di la jàngal mbir dem ba loolu mu la doon jàngal bis ba yegg si nga doxee neneen su boobaa mën nga koo teg kersa. bi loolu amee nag dama delluwaat ci sëriñ tubaa xam ne lii ay dogalam la te mu neex ma nag ni ma neexee mooy xam ne moom fu mu ne mook Serigne fa ne loolu moo waral sama diggante ak moom li ma ci mën a jàpp li sama sama diggante ak moom li ci xew dafa bari ba mënu du ma mën a wax lépp sax nag waaw cofeel gu mu amoon ci man te nëbbu ko nag di ko wax fépp nag